Aïda Ba Aïda Ba ah. soxna Aïda Ba ñu ngi lay nuyu bu baax. Euh, jamono yi ñuy wax ak yéen ñoo ngi fii ci kër gi euh, ñoo ngi toog nag ak ki li nga xam ni moom moo di ayda mbay euh, nekk caatu famille bu ñoom Aziz Dabala soxna ayda mbir mi bi nga xamee ni am am na fan la la fekk ak bi nga ko déggee nan la la def. waa affaire bi bu muy am moom ma fekk Touba parce que man maa ngi dem euh, lundi ay 4 heures du matin Touba mais avant maa dem lundi parce que man Aziz dimanche mercredi fi la yendu fii la Aziz yendu mercredi ba 23 heures muy doog ko ñibbi mais dimanche maak Aziz déggante nañ téléphone mu woo ma téléphone maak moom déggantewuñu après ci la ma vocale par WhatsApp ma liir ko rek woo ko sur le champ tombé mu am xaas ku ma doon yóbbante pour ma war koo séddale xaalisu màggal ma jël xaalis boobu noonu mu wax ma naan ak nan laa koy def ma sedd ma ko mais dimanche boobu laa gëj a déggante ak moom ba lundi ci guddi ndax yéen lundi dafa yendoo taw maag sama mag bu góor ñu tëdd seen néeg di waxtaan ci moom xamuñu sax lu tax ñu doon waxtaan ci Aziz ba ci yàgg sama mag bu góor googu jël téléphone am di ko woo jotul Aziz léegi mënuma ay jotuma Aziz ma yaakaar ne Aziz rek mu ngi ci ay ay kursam man tamit ma tëdd mais ma tëddee. tombe sama benn xarit ñëw indi ma sama gerefaas dem sama yaay jékki-jékki yuuxu yuuxu bu metti ci guddi gi ma ne man tey maa toog bañ dem Touba sama yaay yi nii di yuuxu rek taxaw ma lan la ay 4 heures du matin ma dem Touba. mooy ci dimanche non lundi la lundi lundi presque dañ naan mardi ay 4 heures du matin ma dem egg fa 8 heures matin. ay 4 ay 16 euh, heures sama yaay woo ma téléphone dama ana Aziz maa ngi koy woo jotuma ko man na ko même man avant maa ñëw Touba maa ngi koy woo ko mais ay 20 heures 21 woo ma téléphone loolu ci mardi gi la ba tey Nabou Leye ma téléphone allo Aïda na nga def ana Aziz ko man Aziz gisuma ko maa ngi ñoo ngi koy jotuñu ko mu ne man maa ngi nii buntu appartement Aziz Dabala maa ngi koy woo wuyuwuma maa ngi koy maa ngi sonné euh, buntu appartement mais ibbiwul te fii ma taxaw duma fi bougé tànk justement Aziz Dabala na bu wax ma loolu ma coupé woo sama mag bi ci saasi na ko yow kon Aziz boobu ba tey ñoo ngi koy woo mais Aziz téléphone am tàkku kooku tiit na ma ah kon coupé ma woo ko rek na bu ma téléphone na ma bëgg daaj ji buntu kër gi waaye gi nee il faut que bokkal nday ak bàyyi fekkee affaire bi ma woowaat sama mag bi sama mag bi waa kon baax na maa ngi départ mais jox ma numéro na ma jox ko ma jox ko numéro na bi noonu la demee. Nabou mais après Nabou bu ma xaaree kooku kooku te yéex a egsi mënatul mënatul mu woor ma téléphone ma seen kër xanaa amul góor ma ne ko wax nga dëgg fàtte naa ma Malick mu ne woor ma Malick mënatu maa xaaral parce que dañu war a dajji ndeyu buntu bi na bu lay lii la ma wax ma ne ko baax na après tout sama mag bi si la ñëwee fekk fa na bu lay ak ku war a dajji bunt bi maniseem ak moom ci lañ dajjee buntu kër gi ñoom ñett kese ñoo ko fekkee na bu lay sama mag bi ak manise bi. mais ci biir loolu ñu ngi wax ni euh, nabul bi nga ko dajee pare nabul daf ni ko njëkk la dugg ndax yaay mbokkam ndax loolu wér na. waaw sama mag bi loolu la ma wax ndax man fekkewu ma mais sama mag bi dafa ne bu ñu daajee buntu gi ba pare dañoo dugg takk gis ci kër gi nee na moom mu tiit mais nabule dana ko continuer mais ma dama yaakaar ne xanaa booy seet nit ki nga ibbi portom rek si saa si gis deret bu doon man la damay dof du ma mën a dugg mais nga naan ko duggal sama mag bi di dugg duggal. moo ngi taxaw ci bunt si kër gi naan ko duggal ci néeg bi sama mag bi dugg ci néeg bi mu ne ko loo gis mu ne ko dara man sama mag bi moo may nettali. moo ko wax loolu. na ko loo gis. moom duggul. boobu Nabou Leye duggul dugg na ba ci kër gi dugg na ba ci appartement bi. mais nangut a si biir. yaa kay ci néeg bi mu ngi taxaw ci buntu néeg bi na ko loo gis mu ne ko dara mu ne ko duggal ci salle de bi. sama mag bi dugg si biir salle de bi rek daanu dafa tiit nu ñu ko yëkkatee mu ne ko lan la loo gis mu a ko am naa ko ma gis waaye ma gis da nekkul Aziz mu ne ko nu mu ndax dafa dégradé bopp bi sa bi da ko waaw na ko waale la wuy xamoon naa ko. Ah, Nabou Leye moo waxoon loolu. Mm-hmm. te koy wax loolu lépp moom duggul gisul dara. ba tey duggul tey duggul. mu ko xamoon naa mm-hmm. léegi moom euh, waali moomu moom la gis ci salle bi mais avant muy gis waali euh, Aziz Ba la njëkk a gis wala booy wala waali ñoom gisuñu Aziz ba tey waali lañ gis ñoom bu ñu demee ba gis waali ba pare dañ leen a génne na leen woo leen police ñoom ñëpp ñu génn appartement bi taxaw si biti ci lañ woo police police ñëw police moom moo daaj ji salle bi fa la fekk Aziz. kon ci salle bi lañ ko rayee. salle bi lañ ko rayee ko ci mat laa waali muur ko tëral ko foofu noonu dëpp ko. muur ko ko mm. waaye police moom moo ibbib salle bi ñoom gisuñu woon waali mais gis nañu ñu woon Aziz waaye gis nañu waali gisuñu woon Aziz mais gis nañu Waly mais gisuñu woon Aziz Aziz fu mu nekk dañ koo tëjoon dañ koo caabi woon yóbbu caabi yi police bu mu ñëwee moo dajji saal bi mais man li ma ci jaaxal Nabou Leye bi mu duggee moom ak sa grand frère bi donte sa grand frère bi gis na deret mu ni ko waaye dugga rek jàllal sa mag gi nga xam ni moom góor la comme que moom loolu moo ko mën a surprendre asama ah, jigéen gi taxaw fi muy wax rek naan la jàllal est-ce que loolu jàppoo ni soupçon mën naa commencé am foofu man maanaam jeexi jaaxa ci moom ni mu doxalee. ah ñun nag au commencement man ku ci mel ni man ak sama mag bi wax dëgg yàlla yaakaaruñu woon ni moom la yaakaaruñu woon ni moom la mais après bu ñu demee ba lépp jàll après sama mag mu toogaatee nee na attends waaw man lu tax man Nabou Leye ak lu mu dëgëree si jigéen man miy góor sa daanu naa fa xam naa fa jooy naa fa moom ba tey jooyul te teewul moo ko doon jox. lu nga war a doxee ni nga war a waxee ndax gis nga wala lii wu après ma toogee xalaat laa ne ah nit ñi li ñu bëgg wax nag mu ngi bëgg a nekk dëgg xel a ngi waaj a teeyee ndax yaakaar naa ne boo duggee ci kër koy seet boobu ba tey di ko seet di ko seet bu ñu ibbee porte bi nga gis fa deret bu doon man la damay doof di nga yuuxu xanaa di nga am la bett waaye boobu ba tey tiitoo rafoo ba tey yaa ngi dëgër ah man loolu jaaxal na ma de. mais mais ci biir loolu bi sa mag gi demee ci salle de bi gis waali ñu rey ko mag ji sa mag gi daal di daanu foofu nabu laaj ko ni ko lan la. mu mu wax ko ni ko waali lañu ñu rey n'est-ce mu ne ko xamoon naa ko kon xamoon naa ko loolu loolu lu tax na bu na bu osé mën a waxee noonu ni xamoon naa kon dafay mel ni bi muy dugg kon day mel ni xamoon na mbir mi. doy na waar de hmm, sax jaaxal na ma rek trop hmm. kon euh, mais mais mais moom façon façon bi mu fekk waal yi moom ci rey gi ñii ne nañ dañ koo jamate ñii ni bu dee waal yi fukki euh, onze coups la maanaam fukki euh, fukki jam-jam ak benn nga dégg ñu naan Aziz euh, quinze coups mais bu dee yi moom façon bi ni ñu ko reyee jam-jam la wala ñii tamit sax nee na dañ ko dañ leen a rendi façon bi nan la nan lañ leen reyee kenn rendiwu leen ay jam-jam lañ kenn kenn rendiwu leen dañ leen jam mais en tout cas Wally rey buñ ko rey ñaaw na trop metti na trop ci koo xam te ne du fecckat du waykat te du taasukat ñaaw na torop ñoom ñaar ñëpp seen rey ñaaw na waaye bu waali ñaaw na metti na. Mhm. bi daal bu ñu xoolee moom moo gën a moom moo gën a jéggi dayoo. Mm-hmm. ñaar yëpp metti na waaye bu waali metti na torop. Mm-hmm. mais mais mais mais bis boobu ñu ngi wax ndax waxtaanoon naa ci ak yaayam sànq mais doon na nañ wax mu ni àndoon na ak nabu ñu ñëw nabu moo ko déposé ñu ngi wax sax ñu ni ñi ko rey am na ñi ko rey maanaam avant ñuy dem ndax xam nga dajji wuñu kër. daj wuñu appartement kon da ngay xam ni kon ñoom li ñu doon def dañ ñu fëgg la ñu ubbil leen ndax fekkuñu ay dajji dajji bu doon dajji sax mën nañ ni dañoo te buñ dajji woon xëy na waa kër ga yëg ko mais comme que ñoom dañuy wax nii ñi ko rey dañu am ku ñu woo ni ko ndax Aziz yegsi na kooka ni leen Aziz ñëw na kon kan nga war a jàpp ndax loolu loolu lu am la loolu noonu ñu noonu ñu ko waxee. comme lan am la. comme ci ñi ko ñi ko doon ñi ko rey avant ñuy dem kër Aziz am na ku ñu woo ni ko ndax Aziz àgg na këram xam nga dañuy wax ñu ni bis boobu moom ak Nabou lay ñoo àndoon léegi dañuy wax ñu léegi dañuy wax ñu ni ñi ko rey dañoo am ku ñu woo ba pare ni ko ndax Aziz yegsi na. waaw maa ngi Nabou Leye déggante nañu lan jour waaw jeudi bu ñu déggante après si guddi gi bu ma woo bu mu jógee dig bu mu ñëwee woon waaye dafa ne ma moo ko Aziz ànd nañ hôpital ba mu jógee hôpital am na fu mu ko déposé ginnaaw raay mais moom mu ci otoom di xaar Aziz Aziz am na fu mu dem ginnaaw raay mais damaa ne dafa dafa dafa sàcc film bi foofu kon xam naa boobu mooy cant ya parce que man wóoru ma ndax demoon nañ cant xaw ma loolu amoon mais man Nabou Leye am déposé woon na ko ginnaaw raay mais mu ngi ci otoom di ko xaar yaa ngi dégg bu Aziz ñëwaatee ñoom ñaar ñoo ànd mu yóbbu ko ba teg saako xaw ma mu bàyyi ko mu dem Isako la ko nabi. waaw teg waaw Nabou Leye moom ma wax loolu. après moom mu retourné bàyyi ko mu dem mais damaa jàpp ne koo xam ne yor nga oto moom yorul oto nga koy yóbbu teg bu nekkee Texaco la ko wàcce mënu ko woon continuer ba teg na pool wàcce ko buntu këram gënul woon mais nga wàcce ko foofu mu war a jël taxi luus na de luus na torop. Euh, baax na kon soxna Aida euh, xam naa dañu lay bàyyi rek léegi lan ngay tàggatoo. ah kontaan naa en tout cas kontaan si ñëpp kontaan si ñëpp ñëpp wax dëgg yàlla merci beaucoup.